ngeen def mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fu waaye mën na ci réew mi ak ci bitim réew ñu leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay mbokk yi tey ñu ngi fii ci Grand

du nuyu waa dëkk bi bu baax a baax a baax a baax du nuyu waat waa dëkk bi bu baax du nuyu waat waa Grand Médine bu baax di santaat waa Grand bu baax di sant banlieue treize bi mafia ba boppu coor wuteng France gars yëpp maa ngi di bëggee di bëggee tam waa parking bi yëpp waaw di bëggee tam képp ki jàppale caatu rek ak fu waaye mun a nekk rek sama fan si yëpp fu waaye mun a nekk sa aduna maa ngi lay mhm. bëggee maa ngi lay siyaar maa ngi lay jox sa waajuwaay. Mhm. Mhm. ngay préparer combat le premier mai. si diggante caatu limousine lan moo waral nga jël combat bi. caatu limousine lan moo waral ma jël ko. jàmbaaram moo tax ma jël ko. waaw mm-hmm, moo tax ma jël ko quoi te làmb la. waaw waaw. Mm-hmm. maa ngay dégg rek si biir wax nee na moom mooy borom top 5 te am naa làmb moom moom moo am làmb te xamandu ko. ok première mai yàggatul nag incha allah rabi. Mm-hmm. est que xam nga ki nga jël caatu limousine. caatu limousine non non. maanaam ben combat bu ma seetaan moom ak boar vocal combat bobu non, man mom sama bop rek la gëm. ganaw mhm. yalla yent ak sama ñaanu wajur sama bop rek man lu taxaw sama kanam bàyyi ma xel sa li nga yor man sa attaque sa koñ rek la xam. do tok ba setan ko jang ko muy xam ay qualité xam ay yu mel non non lolu boko ko bisu lamu da ngay ñew diga ko xel dama ko to bàyyi xel lo tax ndax bisu lamu man maay ñew diriger lo tax bàyyi bëgguma ko sa di xol sa ay ni non non. man bisu lamb ji war a ñëw pour prouver diriger wane lu ma liggéey ak jàmm ak salaamatan incha allah rabi. Mhm. Mhm. ki ngay bëreel est-ce du jaaru tam nga wax jàng des fois. pour xam ci moom lu bari. waaw loolu noonu jaru ko mbër boo demee ba koy jàng rek yaa ngi su yaa ngi am lu ngay bàyyi si moom xel te man bàyyi ma bàyyi ma ko xel si lenn di si entraînement di si wàllum bëri bi di si dëgër bopp bi. voilà. Mhm. amul lenn loo xamante ne maa ngi koy bàyyi xel si moom wala di nelaw sax di ko naan non yalla xam na ko yàlla nañ yalla may talak fekk rek wala premier mai ak jàmm ñu xol mhm. incha allah rabi. da ngay beure ko xamne man na beure 30 minutes. Mhm. te du son lu wér diggante ak voix vocal combat bu yag la beure bari mhm. na ay combat yu yag yu beure pare der la da ci dema waaw. jambar la champion tax du ma la may la jàmbaar la. te bañkat la day bañ. lo tax mu neex ma. wala lo tax mu neex ma lol ta lamb la. dama bëgg mom mu xam carrément làmm la am amantuwul làmm sax làmm la am bu baax sax bu rëy. Mhm. voilà. Mhm. te dañ ma yónni yàqamtiwuma. combat bi nii sama sama la. du ma si maye dara. te moom ma may lu toll nit ii ma jël ko. baal ko fa tomb bi. Mhm. lu mu jaral bi bi bi. waaye bi lépp la ma jaral. barki maam Seera Fall combat bi lépp la ma jaral. lépp loo xalaat rek combat bi jaral na ma ko. bu ko jaralee benn ma jaral na ma ko téeméer. Mhm. Oke. voilà day combat bi moo musi pur nil ma musi pour niil pur ma si pour daanu pour daan laa ñëw incha allah rabi. te gëm nga ni da nga koy da nga koy daan si kàttanum yàlla ma koy daan bu soobee yàlla. bu gaaw sax bu soobee yàlla yërënd bi ñëw ma si pour niil. Mhm. ñëw ma si pour daanu pour daan ko jël bu rëy bu soobee yàlla. Mhm. ok naka ngay dundee entraînement yi ak koor gi. waaw gis nga ma ndax mën préparer combat ci koor. waaw. kooku dama ko miis sama yëf la sama lekk la man ay préparé combat nii si koor ni man wax dëgg yàlla jaaxalu ma heure bii nii 17 heures et demi laay dem. Mhm. ba ay 19 heures ma ñibbisi su mu ñibbisee toog naa ba 21 heures mu dugg saal ba 22 heures 23 heures ma ñibbisiwaat nice. Mhm. voilà pour deux séances ngay def ci koor noonu rek ndox du bàyyi yoonam man nay daw rek bu dëgër këcc bi rek laa xay mais. Mhm. caat ñu bari japp nañ dafa xawa échec ci walu lamb manam ñu bari fiñ lay séntu fiñ ne yëgagoo fa. Mhm. par rapport ak say morom yi nga xamni ni. yene débuté ndo ci. Mhm. walu lamb mhm. euh a ñàkk échec gi ci lan la. waaw koku nonu waaw dama koy santé suñu borom. koku dama koy santé yalla suñu borom bu baax xam ne mbër mayur boppam yàlla ki may. waaw te yoonu ndaw du gaaw. koku sax jour dama koy yeddee sama bop yoonu ndaw du gaaw. te yàgg-yàgg bawul dara incha allah rabi faak gudd gan fan bi moo ngi fi ak wér gi ak cër yi wér si kàttanum yàlla gars yi fi ñu ma dama fay yegg mhm. ma leen waaw ma sant ko yàlla bu baax incha allah loolu tamit la combat bii nii le premier mai mhm. ñëw ma pour daanu ñëw ma pour machine niil dama ñëw pour daan caatu limousine incha allah rabi si kàttanum yàlla ok est-ce que est-ce que est-ce que caatu limousine dàqul ñooñu bëree dàqul leen xeex gën leen ëpp leen doole. waaye kooku du xeex. parce que combat bu métti nga jël ah. bu neex bu dëgër këcc. laa jël. ak maa xam loolu combat bu dëgër këcc. loo tax entraînement sama père mayuma ma si dara. Mhm. daf may teg lu métti ma koy dégg père ma ko may maa ngi koy siyaar bu baax di ko jox waa ci waayam sama kës. maa ngi koy nuyu bu baax mention spéciale maa ngi koy waaw aw ma fayam yi ma mm-hmm. mu am fayam yàlla na ko yàlla fay bàyyi ko fi mu fekkee sama njëriñ père Magum maa ngi koy bégee bu baax gaa yëpp jàpp nañ si suñu mm-hmm. waa écrire gànjool famille bi ñëpp su mel na ñoom étoile bonis xam nga ay ñam mm-hmm. sama njaako bi zil rungaz bu si moom ñu toog abu ñoom bombal gaa yëpp ñoo ngi siy jàpp ak 16 21 sonn nañ si bu baa a baax a baax a baax sama benn lonkoo xam saala bu baax gars daa ñoo ngi siy jàpp bu baax. Mhm. te lu si des incha allah si digg géew man maa koy moon man maa koy yeggale ok kon nu ma koy waxee gars yi rek nañ si bàyyi xel. Mhm. caatu bi la noo jaan noo siga doomu génn du jur doomu muus. billaay wallaay wa taala lépp maa koy dirigé le premier mai. incha allah amul dara loo war a yokk ci wàllu bëre. maa ngi si maa ngi yokk lépp maa ngi yokk xeex maa ngi yokk bëre. maa ngi yokk xeex bi maa ngi yokk bëre bi. Mm-hmm. incha allah te le premier mai gars yi dinañ xippi seen bët du xool. caatu limousine lu koy daan bëri wala xeex. caatu limousine. Mm-hmm. xeex bi damay xeex ak moom ba pare. xeex ak moom xeex bu tar. damay xeex ak moom xeex bu neex ba pare. waaw. à suivre foofu. ngeen soog a indi bëri bi. si kàttanum yàlla yërmandeem. daaxu laa xeex benn yoon. non non kooku fan jaar ba daaxu maa xeex. kooku mënu maa daax xeex maa xa gën a dëgër bopp fuuf maa xa gën a lëj. ha degol wala no jaan noo sika doomu du jur man ragal duma top de te ragal du ànd ak man. Mhm. barki mam Seera rafa ragal ba ma ra top neena la ngay tok ci wetu jantal mara bi waw wala wallahi wallahi wa taala ragal du jam guy mukk te man duma ragal man ku yàqamte sa du ànd ak man ku ragal du ànd ak man. Mhm. billahi wallahi wa taala kooku munuma dakh dàq mukk waxtuma nak beure bi. wallaay yaa si léppi làmb waaye lépp loo xalaat doole beeg jomb beeg fit beeg jàmbaar ji yëpp maa ko ëpp. ok moom mooy dégg bu baax. waaw. Mhm. ok yàlla yàlla may tala fekkee rek. incha allah rabi. Mhm. Mhm. jàmbaar production moo la tëgg ah sa carrière mi lay tëgg na la ñaar yoon. su ma juum waaw waaw bi nga mhm. bëreek euh, Ibou Afé. Euh, Ibou Afé la xaw ma waaw yaakaar naa Ibou Afé la waaw. waaw ak bi nga bëreek euh, ak ak bi nga mu ñaari combat xam ni ñu la koy tëggal. taxawaayam seen taxawaay ci ci ci yow noo ko gisee. non ñoom dama leen di ñaanal jàmm ak gudd fan ak taysiir. yàlla may leen wér ak wér la ak dooley poos bu saawaan baawaan. du nuyu tamit sama grand. sama nijaay papa saw hmm mang koy bëggee bu baaxa baaxa baaxa baax mang ko ci bu baax di ko ñaanal guddu fan ak wër mom tamit xam nga rek borom baax la. Mhm. fu deug yàlla mom borom baax ta mang koy wo tamit si lamb ji mu japp si bu baax wala mhm. mom papa saw mang mhm. ko si wo quoi na si japp bu baaxa baaxa baax a ndax xam nga rek. man li top sama ginaaw dafa bari lool li top sama ginaaw dafa bari lool na si japp mom bu baaxa baaxa baax wala mom wo na ko ci quoi man maa ko waaw mom papa saw man caare piol ma ngi lay wo ci lamb ji nga japp ci bu baax jaaje faaw ok mhm. eh, lu la gëna metti sa carrière. sama carrière lu lo xamni tay da ngay tok diko reccu len dal mo xam ne na ko quoi. mi sama combat man ak Ama bi Malika. numu ko préparer xam nga voyage bu ñew préparer lepp yalla suñu borom xam nga rek. Mhm. waaw ñew tek ma natt bobu non ci bir gaw gi sama loxoy xam nga yëngatu. ñëpp gisoon nañ lu ma perte loo sama làmb mm-hmm, mm-hmm. loolu daal laa xamante ne métti na ma lool lool loolu sax waaw te ma sante naa ko nag quoi mm-hmm. ndax mënoon na gën a ñaaw wante maa ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax barke maam Seera Fall ma yaakaar lan nga ci ñoom Pape Mor nga naan àndal bi ngay ndaw ak ñoom Yékini Junior donte que ñoom ñoom ñoom fii lañ nekkoon lan nga ci ñoom ci wàllu bëree waaw moom heure may bëree may déggante ak moom moom Pape maa ngi koy siyaar bu baax ak sama mag bi sama nijaay sama lépp. Mhm. pannu Yékini Senior. Yékini. Ndongo Lo ñoom ñu fa nekk ñëpp maa ngi di bëggee bu baax wante moom heure mooy bëri dama koy woo moom Pa Mour si boppam. mi mhm. ne ma booy bi ma fotom ma ko fotom wala nga ñaari ko ay ñaari mu xoolal ma combat mi ne ak moom nii ak nii ak nii. mu jox la conseil. barki maam Seera Fall moom Pa Mour te combat bi incha allah moo may jox conseil bu may daanee boy bu soobee yàlla. Hmm. incha allah rabi. ok waaw ok. Hmm. lan ngay préparer ci wàllu mobilisation ndax nag jóge nga ci ñaari combat yu métti ah. ñu bari yaakaar ni supporters yi dañuy xaw a wàññee quoi. Ah. non non waaw man samay supporters mënuñu wàññeeku. kooku nag du man de. Mhm. <laughs> yàlla la. samay supporters xam lu tax damaa mhm. màggaan ak ñoom man ak ñoom démb la tey soog a ñëw. dama mhm. fowandoo ak ñoom màggandoo ak ñoom. billaa wallaa wa taala te gis nga ñii ba léegi des na ñoom tam dañuy gën a màgg. Mm-hmm. man samay supporter mënuñu maa bàyyi ndax damaa fondoog ñoom màggandoog ñoom. billaa wallaa wa taala man xoolal ba suma daanoo suma ma ñëwaatee esaat jour boobu la mbooloo bi di gën a yokk. waaw kooku nag alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax yal na yàlla gën a xeeb dolli. Mm-hmm. te bii nii mooy raw man xam naa lu tax mais bii mooy raw. Mm-hmm. incha allah rabi. di ñaanal samay fan si yëpp fu waaye mun a nekk rek maa ngi lay ñaanal gudd fan ak ak cër yi fu waaye mun a nekk si àdduna di bëggee caatu di sonn ngir caatu. Mhm. maa ngi lay bëggee bu baax di la woo le premier mai incha allah midi 13h nañ ma jiitu ñoom esaat. Mhm. si kàttanum yàlla. Mhm. voilà. ngay bëre ci journée bu rëy boobu di Franc ak Bombardier. ah journée bu toll noonu kay nga ciy nga ciy bëree ba njëg kontaan ak mbégte. kontaan ak mbégte bu rëy la siy am. Mhm. ndax bis la. loo tax mu ne la bis boobu noonu ñëw ma pour daanu. ñëw ma pour match nul. ay talfa dañ fay bëri ah. say morom daan ko. <laughs> barki maam Seera Fall xam nga. Mhm. ñëw ma pour daanu de ñëw ma pour machine dama ñëw pour daan la yow caati lu machine. incha allah rabi si kàttanum yàlla. Mhm. wallaay Azim. incha allah rabi. ñooñu nga wax ñooñu samay waay lañu. waaw ku ci melni ñang sama doomu nday mhm. sama wayang ngi non. Mhm. ku dafa am loo xam dañ ko dund ak mom barki mam seera ñang baaro si sama sama doomu nday la wax ci lo leen dund rek astur rek <laughs> seen ñaar no koku sama nit la waaw koku sama nit la jambar si bir jambar yi ngi noonu góor yàlla dëgg barki mam seera faal billaay wallaay wa taal lo tax xam nga rek mhm. da kay wax sax man koku boma ma tegaloon ay milliards lu dul jeex sa aduna ñang duma ak mom. maa ngi woon dañ dund gerte bu rafet foo xamante ne fu gënoon a métti. Mhm. ñu toog fa sekku ko fa. dund ko mu jox ma cër lool ma delloo ko cër bi. Mhm. ci kaso bi quoi parce que maa ngi ñu mhm. dund fa lu rafet ma moom. ñu dund fa lu naay suba ngoon ñoo koy bokk entraîné. ndeysaan. barki maam Seera Fall. ña ngi buy xuloo sax su ma séenee muy ñëw sax su ma séenee may ñëw sax day arrêté. billaay wallaay wa taalaay yal yàlla may ndam ak talfa yëpp. di ñaan xam nga sama doobu nday sama grand sama lépp sama waay Alburi. Alburi waaw jël na ko si yàlla may ndam lu rëy incha allah ndax moo ko ubbi. Mhm. bu daanee ma daan. ndeysaan si limousine liggéeyantu moo ko sax bàyyi moo ko sax xel xaw ma ni sax ndax moo ngi dund. yal na yàlla may gudd fan ak wér rek mu yokk cere doole ñeex. incha allah incha <laughs> ok lan mooy sa dernier message. waaw sama dernier message. mooy maa ngi waat waa dëkk bi. di nuyuwaat waa dëkk bi bu baax a baax a baax Arafat Grand Yoff yàlla. Mhm. xam nga du bëggé fofu ñëpp. du bëggé wa gramidine parcel 1 ba 26 ma ngi siar ñëpp. sama fan rek fu way mëna nekk rek xam nga. di mhm. ñaanal caatu di jappalé si caatu. ma ngi lay bëggé bu baax du nuyu tam sama ben grand. Mhm. ay grand sa lay wax ñu nekk ka ko ci melni morgay Mor Moussa Ena Mbaye Arwa gaay yëpp ak sama mhm. jigen tam nday May sar japp nañ ci combat bu baax. wala ma ngi siar bu baax baax. du wax tam xam nga rek fulé dafa metti quoi kaso bi. metti na trop. di wax tam xam nga suñu président bu bees bii nii toog nii. Mhm. mu gën si bàyyi xel. kaso bi dafa bëri ay dof. Mm. dof lan lay def si kaso bi. waaw. Mhm. dof yi lan la ñuy def si kaso bi chambre 10 chambre 3 4 dof yi dañ si kaso bi. Mhm. nañ ñu dimbali rek ngir jëm sëñ Tuubaa ngir yàlla yenent bi ñu dimbalu ñu rek ñu jéem a xool seen dossier rek ñu bàyyi leen ñoom nuñ ñibbee ko amuñu añ bu ñu leen di indil ñu lekk. ndeysaan. amuñu mburu bu leen di indil ñu lekk. barki maam Seera Fall nekkul ay question de ay sos de. Mhm. billaahi amuñu pour ñu sangu sax problème la. ndeysaan. pour ñu sangu. problème la kon nañ ñu dimbali rek. ngir jëmb sëñ Tuubaa message bii nii. Mhm. nañ ci dimbali rek mu jàppale ñu quoi. Mhm. fu nekk chambre dix. ba chambre trois chambre quatre yeneen chambre yi yoo xam la ñuy nekk ñoom ñëpp. ndeysaan dañ leen dimbali rek ngir jëmm yeneen bi ngir yàlla yeneen bi rek ñu xool seen dossier quoi nu leen jéem a xoolee ñu baale ñoom ñu dem quoi. mais buñ xamul ñoom fu ñuy yegg fu ñuy dem sax. Mhm. nañ leen bari ñu génn kaso bi. incha allah rabi incha allah laay gën a lancer en message di ñaanal mhm. ñëpp campénal Cap Manuel 100 mètres Koutal Mbour fépp fu waay mën a nekk rek. maa ngi leen mhm. masa coono bu baax baax baax yàlla na leen yàlla teggil nattu bi. waaw. di santaat waa Grand Médine bu baax a baax a baax a baax di sant nag képp ku may jàppale samay fan si club. xam nga samay grand sama samay staff maa ngi di bégee bu baax. gars yi yëpp su ma limee seen tur damay juum. képp ku may jàppale rek di sonn si man la maa ngi lay bëggee. Mhm. waaw. Mhm. du nuyu nag xam nga sama waa koñ. ñoo xamante ne su ma koma combat dañ ciy sonn dañuy toog fii di garder mafia bu ndaw bi nii xam nga ñoo ngi ne di defar café gi. ndeysaan ku si mel ne xam nga sama tout tànk bi taxaw ñoom Amsa ñoom Robel ñoom Paboy ñoom Matar ay Usu. Mhm. ay Odu. gars yëpp fi la ñuy toog ñoom ñang DG bi. ñoom ñii ñëpp ay Abu Maxa Ndiaye moom ma may ketal ba sonn. maxa ñaay daf may ketala ketala ketala ketala su ma ko nee lii lan la mi na ma am yaa xam ma mëna ko lii du ma ko laal jël ko nga mootali ko ngeen xool booy nuñ toll mhm. ngeen jënd ko ticket ndax booy mun dem esaat barki maam Seera Fall nabee mhm. ngi nee toog xam la lay wax ñun mhm. soxlawuñu ko yow jëlal nga génnee si say sarax barki maam Seera Fall jëmm jee toog ne maxa njaay yal na ko yàlla fay yal na ko fi yàlla bàyyi mu fekkee sama njëriñ incha allah maxa njaay barki maam Seera Fall ma yaakaar di sant nag jeunesse su Grand Médine bi yëpp booy yëpp ma seen fay grand frère yëpp waa mbaar ba tax maa leen di bëggee bu baax ku si mel ni Lamine Diassi Mbaye jeeju Kéba Diédhiou mhm. yëpp maa leen di bëggee di bëggee tamit sama grand frère tamit maa ngi bëggee tamit Nabi bu baax maa ngay bëggee ku si mel ni tam ak moom lonkoom Issa gars yëpp mhm. sama waa ji tamit Cudaaf Vieux Diassi maa ngi koy siyaar bu baax voilà. Mhm. gars yëpp ñi képp kuy sonn kii pour Thiatou Piyol la. waaw bëggee naa ñëpp siyaar naa ñëpp du jox ñëpp seen wàccuwaay. rendez-vous le dégg lu ma la maa nga fa am. noo jaa noo sika doomu gene du jur doomu muus man ragal du ma topp. te ku uh-huh. yàqante tamit du ànd ak man. kon nu ma koy waxee rek bàyyi si xel. Mm-hmm. incha allah rabi. jaajëf di la jaajëfal nay daw rek